نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي ñi ngi am mbégte ak contentement bu baax a baax euh, jàkkaarloo ak yéen tey nag ñu dalalaat euh, bu baax a baax euh, Cheikh Abdoulaye borom kurus gi fas yéene waxtaan ak moom lépp loo xamante nii rek yaakaar naa wàllum ñaan yàlla la wàllum seet lépp loo xamante nii rek listixaar la dinañ ko waxtaane ak moom ba ci actualité biir réew aouzu ah. billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim qaalu subhanaka laa ilma lana ila ma alamtana innaka anta alxalimul hakim maa ngi leen di nuyu Abdou di leen ziyaare yenn groupe Sans Limites yëpp di leen ndokkeel ci jotaay bi di nuyu murit tijaan xaadir laayeen ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew ñi ci jàngu bi ñu ngi nuyu ñëpp di leen dalal di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh macha allah ñu ngi lay fay bu baax a baax ñu gëj laa gis lool ci li nga xamante ni moom moo di ci internet bi ñu bëggoon xam rek lu waraloon toogaay bu yàgg bi ñu ngi sant yàlla ci loolu di wax alhamdulillahi rabbil alamin feeñ ci jamono ju ne damay faral di wax ne amul njëriñ njëriñ bi bëriwul gis naa nag ñoo xam ne waxtu wu ne jamono ju ne ñu ngi feeñ dëgg la naam di gisanteek jaamu yàlla yi loolu rek ci jaamu yàlla la bokk waaye nag dafa fekk ne ñun dañu sumboon ci liggéey yu bëri nekk ci jàng ak ci jàngale loolu noonu dama yaakaar ne képp kum nekk ci yow sa jot war ta liggéey yi bëri na bëri aajo yoo xam ne dafa taxoon ñu tëju kon nag tant que aajo yooyu fajuwul amuñ droit amuñ sañ-sañ génn toog di waxaat ak ñeneen te ñiñ sumboon seeni aajo fajoogul loolu moo ñu tëjoon njàng ak jàngale ak nekkoon ci yenn ajo jaam yi waaye alhamdulillah sant nañ yàlla képp ku taxoon ñu dugg sa aajo faju na ba tey ñu génn nag ngir dimbalanteeg jaam yàlla yi képp ko mu am aajo rek ñëwal bunt baa ngi nii fëggal boo fëggee bu soobee borom bi tabaraka wa lépp lu la tax a jóg ci aajo ju mën doon yàlla dana la ci may ndam incha allah macha allah am na solo lool dañ koy daati dooree rek ak li nga xamante ni moom moo di wàllum ñaan yàlla ak fi réew mi toll yaakaar naa ñi ko gëmati sax bëriwul ndax yàq-yàq yi maanaam ñi ci nekk di yàq dafa bari ak ñi nga xam ne dañ koy mbubboo ñu ngi sant yàlla ñaan yàlla nag képp koo gis mu jug ne daf koy yàq dafa fekkul mu nekk lu muy lu muy dund maanaam tey bu fekkee da nga yeewu fekk say waajur du ñaan ñun dañu am sens ci wàllu ñaan yàlla dañ ko donn waaye it dañ ko jàng dañ ko donn mooy lan mu ngi mel ni géwél bi ni juddoo rek fekk galan bi ci kër gi ñun noonu lañ mel ci ñaan yàlla dañu juddu fekk suñuy maam di ñaan yàlla fekk suñuy waajur di ñaan yàlla di ñaanal chef d'état yi di ñaanal ministre yeeg autorités yeeg ñëpp kon nag ñun suñu donnee ñaan yàlla mu wér ci ñun loolu doyul ñu génn gëstu ba ci fukki réew ak benn buñ gisee ku yàq ñaan yàlla ñun dañuy jàpp ne kii nekkul ne alal jooju noonu moo ko ngénte comme lii Balla Gaye di faral di wax ne xaalisu làmb moom a ngénte waaye man damay wax xaalisu ñaan yàlla man moom ngénte kon nag alal jooju noonu tey képp kuñ ci ngénte nga juddu bëgg a wuuteeg li sa waajur yi nekkoon kon yow dafay mel ni nekkuloo doom ju baax moo tax ñun ci yoon wi buñ gisee ko ci xajamal ak di ci lëndëmal dañ koy yërëm ndax mbiru ñaan yàlla dafa leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ne adduwaa wasilaaw muminuun jullit ñaan mooy ngànnaayam yàlla ne uduni stajib lakum ñaan leen ma ma may leen kon nag nit ki amul droit ñàkk ñaan yàlla ñaan yàlla nag mooy loo xam ne soo ko amee daf lay topp daayi man jafe-jafe doo ko am gàllankoor da ko am Abdou est-ce que xam nga ne problème yi ci réew mi yëpp ñàkk ñaan yàlla moo ko indi ndax yàlla lim yor doyewu ko dara te képp ko ko ñaanul da ko noppal moo tax nag mbir mi ñaan yàlla la jaam bi ñaana lépp Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu Baye Niass daf daan wax ne yàlla na ko ñaan lépp lu rëy lu ndaw moo yem ci moom ba xorom si nga xam ne sa soxna daf koy xoromee cinam sax na ko ñaan yàlla lu tax parce que xorom soosu noonu bu amul ci togg gi amaana doo ko jëriñoo kon nag lu bëreeg lu neew lépp jullit bi daf koy ñaan yàlla boo ñaanee yàlla da ngay toog gis ca sa bopp ca kanam te xamoo lan moo tax nga yegg foofu noonu yonent yi gën kawe ñaan yàlla moo leen ci génnee ayuba jën wan na ko ñaata at at yu bëree bëree bëri mu nekk ca biir ba di zikkër laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin topp ko di ko ñaan yàlla ba yàlla génnee ko ci jën boobu noonu ayoo ba tawat na ba sax yi commencé di lekk yaramam biñ demee ba bëgg laal xol bi rek la ne fii moom nag yàlla bul seetaan ñu laal ko fii sa place la kon ñaan yàlla dafa am yonent bi sallallahu alayhi ñaan ba fatu màkkata taxaw yonent yàlla ibrahima alayhi salaatu salaam ñaan ci kaaba gii ñuy aj ñaanu yonent yàlla ibrahima la parce que dafa taxaw mu ne wa asin fi naasi bil hajji yettoo ko rijalan wala kulli daamirin yettina min kulli fajjin xamiqin ba tey nit ñi di jugee ci gox yu ne di ñëw ci mu karam di aj néegam yàlla bi loolu ñaanu yonent yàlla ibrahima la kon nag yonent bu ci nekk ñaan nga yàlla ba yàlla may la la ngay sàkku kon nag ñaan yàlla daf fee yàgg te du fi mus jóge nañ fonk ñaan yàlla nañ gëm ñaan yàlla nañ topp ñaan yàlla. Mhm. macha allah am na solo lool wax nga ko sànq ci say biir wax muy jafe-jafe eh, jafe askan wi yaakaar naa bari na lool moo xam ku nekk ak bi la yitteel ñii dañuy jug pour wàllum nopp ñii dañuy jug pour wàllum bayre ñii dañuy jug pour wàllum listixaar ñii dañuy jug pour wàllum ñaan lu yàlla ani ani ani Cheikh Abdoulaye ban la ci ëpp loo xamante ni moom lay liggéeyal askan wi. ñu ngi sant yàlla ñaan yàlla nag dafa jeexal wax bi. ndax yàlla lépp lañ koy ñaan wax laa ne la du bàyyiwuñ dara wàllu noob nag boole ay doomu aadama kooku ñëpp dañ xam ne man mii ambassadeur laa ci lu nu mel mbir boole daal bu buñ demee ba yegg ca damay faral di wax ne képp ku ñu jàpp say mbokk danañ laaj kii lan moo ko dal parce que borom danañ gis soppeeku ci moom am na ci loo xam ne dañ koy jël jël téere ba def ko ci butéel bu weex def ci meew nag gas ba mu xoot ñu suul ko juutal ko walaay lazim képp kuñ ko def di nga gis ne di nga topp borom comme ni xaj di toppee boromam maanaam wàllu boole yàlla may nañu ci ak lu mën a doon bunt buñ bii buñ ko fëggee rek moo xam nit kii dafay sàkku kaaraange ngir mucc may nañu yàlla may nañu loo xam ne doomu aadama bi bu ko jëfandikoo dana mucc damay faral di wax ne man képp ku ma aar protéger say mbir sa baaram sax bu ko nit tàllalee mu jëm ci yow ma damm baaram boobu noonu ci digg bi waxuma la loxo nag ku ko tàllal mu jëm ci yow ngir lor la rek man ma jël sama loxo damm loxo borom boobu noonu ci digg bi kon nag lépp ñu ngi ko lal ci ñaan yàlla lépp lu ñu ñëw fekk ñu ci rek moo xam wàllu ubbeeku la moo xam kaaraange la moo xam lu mën a doon bu ñëwee ci buntu ñaan yàlla rek ñu jaar fa ak jaam yi seen mboolemi aajo faju ñi nga xam ne dañoo yor ay jafe-jafe maanaam jafe-jafe këyit ah jafe-jafe li nga xamante ni moom moo di kaso jafe-jafe li nga xamante ni moom mooy pour nga am liggéey toog fa sax lu jafe la wala ki ngay liggéeyal boo bëggee tamit mu jox la bopp. waa ñu ngi sant yàlla ci loolu jafe-jafe ci wàllu kayit yàlla yàlla may nañu ci yoon yu wér yoon yu wér yiñ ci am bëri na am na loo xam ne képp kuñ ko defal nga nekk ci réew ñu jox la ko nga boole ko ak suufu dëkk ba dëkk boobu boo fa sàkkoo kayit da nga ko am. boo fa sàkkoo jabar di nga ko am boo fa sàkkoo liggéey di nga ko am lépp loo fa yootu yàlla mën na la ko may te loolu noonu ci wàllu kayit lañ koy liggéey am na ci loo xam ne dañ la koy jox nga utiliser ko boole ko ak lettre boo xam ne dafa jéggi ndox enveloppe bi ñuy def sa yóbbante sax mën nga ko jëfandikoo boole ko ak saafara bi ci wàllu kayit yàlla dana la ko may pour ki nga xam ne dafa jóg ngir bëgg a tukki wala muy yootu visa wala am lu muy sàkku am na loo xam ne dañ koy bind ca passeport ba passeport boobu fu ñu ko dugal ñu visé ko duñ ko bindee bic waaye nag sama baaram laa koy bindee su ma ko bindee passeport boobu wallahi lazim fu ñu ko dugal dinañ ko tamponné këyit goo mënanti di sàkku moo xam liggéey ngay ut moo xam lu mu mën a doon nañ bind suñ baaraam ya ca këyit ga jox la ko la ngay sàkku yàlla may la ko nit ki nga xam ne dafa nekk ak patron bëgg juboo ak moom am na ci loo xam ne suñ la ko joxee nga nekk ci makkaan bugguloo fa jóge dañ la koy jox boole kook turu bërëb ba nga takk ko sa ndigg ba ilaa mi diin bërëb boobu kenn mënu la faa jëlee bëri na ak ci wàllu kaaraangi ak lanati ak lan nga laajaat. ñi ñi ñi ñi bëgg borom kër ak yooyu. waaw lu wàllu borom kër nag am nañ ci yoon woo xam ne buñ la ko joxee dañ la koy jox nga boole koog meew nag pur nga taxaw ci ron garab goo xam ne dafay meññi nga sangoo ko fa balaa moom mat 40 jours nga am borom kër mbiru borom kër quarante jours ci lañ koy liggéey waa ñeent fukki guddi rek boromam aajoo yëpp mat te nag lii sabab nit ñi ñu am jafe-jafe ci yéex a am borom kër wala yéex a am euh, jabar àndandoor daf ciy bokk da nga gis doomu aadama boo xam ne àndandoor dafay topp say mbir tëj sa mbooleem buntu wërsëg yi nit ñi suñ amee yéene ñëw ci yow sax yéene boobu noonu da ngay gis ne du mat suñ demee nag ba xam ne lii àndandoor la am na lu ñuy liggéey jox la ko nga boole ko ak deru mbëtt nga takk ko am luñ liggéey jox la ko nga boole ko xasum kàdd ak xasum daqaar nga sangoo ko boo ko sangoo bu soobee borom bi rab dana la bàyyi lépp lu la tawoon yomb la soo buggoon soxna di nga ko am soo bëggoon jabar tamin wala borom kër bu soobee borom bi di nga ko am te loolu nag li koy gàllankoor mooy wàllu rab cat ak làmmeñ it mën na gàllankoor nit ki ba fi nga bëgg a yegg dafa mën a yegg ñaari mbir sonal na sonal na jamono ji rab ak cat ak làmmeñ xanaa xamoo abdu liggéey bëri nañ koy wax ak a jafe mën nga gis téeméeri nit ñëw seetlu ci yow ñetti nit kese la ci liggéey jàpp juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent yëpp cat moo leen jàpp ak làmmeñ ak wàllu rab moom moo leen di jàpp wa ilaa nga daje koo xam ne xamul lan mooy sa sarax léeg nga dox ba daje sëriñ boo xam xamul ci bidiw dara dara dara dara nga war a sangu joxu nga sangu mu jox la nga suuru nga war a suuru mu jox la nga sangu bu ko defee ñu bari dañuy tëju wala nga dem ñuy jox la xawaatim gu damm nit ñi damay faral di laaye biir ñu bari ku ci réer ci asraar ñëwal ma jàngal la buñ ko deful askan bi yëpp mun nañ leen lor da nga gis mbind mi rafet doon alxuraan dëgg la naam day jëriñ waaye nag amaana lañ koy sàkku mën nga koo ñàkk am ndax alquran ma farat naa fil kitaabi min cheyin alquran amul lu ci amul waaye nag il faut nga xam noo koy utilise kon nag mbiru yàlla dafa am yoon dafa am buntu bëri na ñu lay wax mën nañ xamuñ ci bidiw dara nit nag da nga war a am xam ci xel mu nujuum am xam-xam ci xel mu sajara doomu aadama bu dee boo gisee nga xam lii mooy tabiam lii moo gën ci moom nga jox ko ko moo tax ñun ci suñ buntu képp ku fi ñëw yëkkati ko rek tax laa jóg yàlla dana la ko may ba mu kawe sa njortu incha allah internet sans limite tv fàttali leen ñoo ngi jàkkaarloo ak Cheikh Abdoulaye borom course gi ah numéro téléphone am di 77 229 19 70 77 229 19 70 yéeg ngeen li nga xamante ni waxtaan na ko fi képp koo xamante ni rek am nga ay aajo yu bëgg mu faju da koy daati woo ci numéro téléphone boobu dinañ ko bind ci baaw écran bi boo jokk ak moom rek incha allahu rabbi comme ni mu ko waxee say aajo dina faju te bu dee yëkkatiku ngay wut di nga yëkkatiku bu baax a baax ah, bu ñu jugee foofu ñu jàll ak yow rek ci actualité actualité yaakaar naa balaa ñuy jeexal actualité nag buñ koy wax fi toll yaakaar naa làmb ji duñ ko tëb ah bëri na ba mu commencé ba tey ba mu ubbee ba tey jafe-jafe yi nga xamante ni ñoo ngi ko ciy jànkonteel pour nit sëgg bëree sax yaakaar naa lu lu jafe la mu mel ni rek daa ñëwaat indaale ay jafe-jafe moom am affiche bu mag boo xam ni moom lañ dëgmal ah ñëpp ngi ciy wax ñëpp a ngi ci ah, joxe seen jàngat ñëpp tamit ñi ngi ci eh, génne li nga xamante ni moom moo di ay saraxa ah, Cheikh Abdoulaye ñu bëggoon xam rek ban jàngat nga def ci loolu ak ak ak yan sarax ngay digle ak lan lan ngay wax askan wi. làmb ju ñu jublu di Balla Gaye Bombardier Abdou dama la ne làmb ju bari mystique la sarax boo yaakaar nag def nañ ko ci làmb ji waxtu bi bu ñu wax ci wàllu mystique mën nañ ne Balla Gaye moo gën a jekku ci wàllu mystique waxtu wi tey tey buñ ko bëree woon gay Gaye daan Bombardier jël bu set wecc loolu nag ci gàllaaj la làmb nag tendance la dina am waxtu woo xam ne diw mooy gën a jekku ci gàllaaj ba nga xam ne suñ ko bëree ndam am waaye nag waxtu wi Balla Gaye lañ gis ne moo gën a gën a gën a jekku ci wàllu mystique carrément moo gën a jekku ci wàllu mystique moo gën a taxaw ci wàllu mystique damay wax ne suñ ko bëree woon tey nga gis Balla Gaye daan Bombardier jël bu set wecc mystiquement waaye nag dafa am luñ koy digal am na rab boo xam ne waxtu wi kenn waratu koo rey bu combat bi desee ñetti fan jàpp ñeent waxtu wi combat bi des des na ñaari fan jàpp ñett su ma amoon digal bu ma koy digal rab bu ñuul bi am rëdd yu weex yi bu mbokk ci ñu koy rey jëlee nañ ko nag ci dëkk bu sori waaye nag bu ma amoon sañ-sañ ci ñoom dinaa leen wax ne rab bii suñ ko reyee ndam duñ ko ci jëlee su muusee daal li des ci combat bi bu ci nangoo tuur benn deret bu ci tuurul benn deret dina ci jëlee ndam lu sedd guy bu fekkee nag daf cee tuur deret ray rab bii ma wax ni la muy sàkk du ko am kon nag may bëgg wax ji di leer toujours ndax senegal lépp loo fi wax rek ñu ñëwaat ne yaa fi waxoon nangam waaye ndam li mu ngi ci loxoom waaye rab bu ñuul bi am rëdd yu weex yi jëlee nañ ko ci réew mu sori waaye buñ ko rey ci combat bi mukk suñ ko ci combat bi duñ ci jëlee ndam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي